salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan ci seen chaîne bii di TDV ak Sine Saloum Pro ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fas yéene àndaat ak nu ñu koy baaxoo di def màggal gu nekk ren uh, yamook 2021 uh, 443 hijriya ñu ànd ak yéen nekk fii ci tubaa ngir jotalal leen lépp loo xamante ni si rek ay image la jóge fii ci Touba bu ngeen xoolee suñu gannaaw da ngeen xam ni tubaa li fi gouvernement bi war a def uh, des na lu bari ndax. lu toll ni màggal tuba ak ndox mi wàcc fi taaw bi mënul ba mënul jàll nit ñi amuñ fu ñu jëm loolu day wane liggéey bi ñu fi war a liggéey jëm ci wàllu assainissement bi des na lu bare bare bare moo waral paas yi yëpp dañ ko yokk booy xool ci biir dëkk bi saret yi nga daan dugg 100 francs tey 200 francs lañ lay fayu yéen nag ci moto yeeg yooyu dañ lay gën a doublé oto boo wax mun la 2000 4000 kon nag euh, loolu da leen interpellé que ñu war nañoo liggéeyaat. maanaam dëkk buy taañ ni ko euh, Cheikh Ahmadou Rafa yi waxee amatul fenn ci àdduna bi waaye nag Touba daf fi waroon a ñàkk ndax dëkk boo xam ne dañuy wax moom ak capital bi bun moo ci ëpp kooku def naa tey jaadootul woon ñu taxaw di gis ndox mi suñu gannaaw mu indi jafe-jafe yu metti ba ci ay borom kër yoo xamante ni si sax euh, seen toilette yi mënuñu ko jëfandikoo ndox ndox mi dafa ball ba dafa mujj fees ci foos yi loolu nag ñi ngi taxaw ak euh, kenn koo xamante ni si euh, citoyen la ñu laaj ko moom itam salaamaaleykum sang bi. maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. fan nga jógee ak fan nga dëkk. man fi laa dëkk te su koñ daara Xuddoos laa fi ñu taxaw euh, soriwu la. waa fi ñu taxaw ndax sama kër moo jàkkaarloo ak ndox mi. jafe-jafe mette mett métti fi fiy jànkuwanteel mu jot. Mhm. mu jot waxtaan ñu ngi koy ñu ngi fiy jànkuwanteel ko jox ndax ba ci canal yee. Mhm. ñun lu an mu det ñoo koy sekkal ñi ñooy defar kubiree ca nekk ne mooy canal yi nga jàkkaarloo ne at mu jot ñoo ciy nekk di jaayante di ci jaayante di suñu ñàkk di ci liggéeyal euh, sëñ Touba at mu jot waaye nag euh, nguur gi tamit war naa gën a jàppale euh, tamit population Touba surtout tamit monsieur le maire Abdou Lahad Ka dëgg yàlla moom liggéeyam tamit vraiment bu nee mi ngi koy def wax dëgg yàlla kon mën naa ne dëkk ñu bëree bëree bëri ñu seen bopp daal surtout waa Darou Khoudoss jafe-jafe am nañ jafe-jafe lii ndox tamit partout Touba man mun fenn foo xam ne robinet boo dem du xel yi certains yi ñu fi indi woon dañ koy jaay ay 50 000, 25 000, 30 000, lañ fi lañ fi ci dañ koy maye ne ba sama bidon bi 25 000 pour fi vraiment même pas lu un km ak ak vraiment euh, état war na ci euh, taxaw ci baax baax baax maire ci mën tamit euh, mbay war na tamit responsabilité tamit war na a feeñ tamit nga ko ci da nga ci a ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ana wax dëgg tamit am na ci loo xam ne dëkk bi tamit ñoom ñoo ko moom seen bopp lu ci a ah, a wax ñu ñu ci ñi nga xam ne ñoo yore gestion wu ndox mi ñu ni dañuy dañuy gis ni forage am na sabotage yow en tant que dëkk fii loolu nan nga koy dëggalee. ah loolu moom wax dëgg ndax fii ma jaar nii ab tuyoo ngi fi tëdd fee ne fii ab tuyoo ngi tëdd gis nga robinet benn ya ab central ngi tëdd tëdd fee ci ñu ne fanweeri forage ak ñett ñoo ne ci dëkk ñoo ne ca biir centre bi amul ndox vraiment sabotage moom du ma mën a weddi ne amut du ma mën a weddi ne amul moom ndaxte euh, du ma a weddi amul daal ndaxte wax dëgg yàlla nag euh, am na daal xam naa daal. Euh, wala boog ñi ngi yor wàllu ndox mi xamuñu ko. Touba ci kanam ñoom ñi ngi ñi ngi jëf ci biir dëkk bi maanaam seen gestion yéen nan ngeen si gisee seen bopp. wax dëgg yàlla ñoom moom kenn mu leen instant bi ñu toll kenn mu leen wax dara moom wax dëgg yàlla bu def ñëpp defoon wax dëgg yàlla Touba dana a jëm ci kanam moom incha allah baat boobu ñëpp mel ni moom ku ne ci dëkk bi rek di li ñoom di def kon Touba dina gën a jëm ci kanam incha allah ñooñu wax dëgg yàlla kenn mënu leen critique moom kenn ci àdduna ku leen mën a wax dara amul moom wax dëgg yàlla li ñu amee ko si néew moom ñu ngi koy ñi ngi laaj nit ñi gis li sëñ Cheikh Mbacke waxoon fu ñu gis ñoo wax dëgg yàlla ñoom moom ñu ngi ci ñoom ñi ngi tax liggéey nañ fi liggéey bu solo wax dëgg yàlla tamit moom mbedd mi ba ak lépp daal liggéey nañ si lii li ñu moom maanaam fii kon dañ ko defoon genre bassin lañ ko defoon. non fii canal la def canal la fi nekkoon jamono Sëñ Saaliw canal yi ñoo doon ñoo yóbbu fii jaar yóbbu ca bassin ba quoi fii ay canal la fi nekk quoi ay canal la fi doon tuuti mi du war a dem li mu war a demee ñun adam bu jot ñooy xuus fii ni di ko di ko débousser ba ci ren ci mujj mais nag ndox mi moo tegaloo ba ci xam naa ndox mi tamit canal dafa sakkaan ndax ah, ah, suuf si dafa tiim tëli bi waaw si boo loolu loolu rek ndox mi suuf si dañu a ci kaw tëli bi yi loolu daal ci am ci jafe-jafe bu ñu jàngatee vraiment. ma ni ngeen ko gisee dégg ko noonu kii témoigné la tungal du tee ñuy nataal moom këram sax lañu jàkkaarloo nii fi ñu taxaw euh, problème boobu la ñu am pour nga jàll beneen mbir la kon nag euh, ñi ngi interpellé ñi nga xam ne ñoom ñoo war a def ci lii euh, kenn gënu ci yey ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement bi ndax ñooy ndey ji Cheikh ñoo war a taxaw ñëpp. Euh, kon nak mbokk yi gis ngeen ko ni lañ koy taxawoo insha allah taala ci biir màggal gi bu mu jeex ak seen euh, chaîne bi di tdv sin saloum 7 pro bu ko soobee yàlla ànd seeg sama caméraman bu ñaawal bi el hadji malik ba euh, insha allah taala salaamaaleykum wa rahmatullah ba ci kanam ngeen